bismillaahi ma jug man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratulaahi bismillaahi ma jug man sant lillaahi sant lillaahi ñi ci dun yaa jaaratulaahi am jaara bismillaahi ma jug man sant lillaahi sangub jigéen ni ci dunya jaaratullah ma ko gàddul cant ay ay wala ziyaara ka ñaanal jaaratula am jaara bismillah ma juumal sant li sëñ Basiru jigéen ñi ci duniya jaaratullah am jaara budul ko nak sunu maam Mariama jaaratullah kon buur ya daa xare duñ dem jannatullah ma juumal sant jaara borom poroxaan ni ci dunya jaaratu la jaara bu dul ko nag raw de tuumam jaara fii la ñëpp jaaru jëhin kay jaaratu la jaara bismillah ma juumal sant lillah sant lillah ñi ci dunya jaaratullah jaarale leen ko alhamdulillahil karim tuba liman balaxaay mam jaaratullah jaarabilillahi majumal sant lillah sant lillah ni ci dunya jaaratullah jaara Seex Bamba de xadamalam yakuni la yakunu li mumkinin min Allah jaara bismillahi majjuman sant lillah sant lillah ji ci dunya jaaratullah am jaara maa lay nuyoo ka siyaara ka yërëm lu fi yokkal yaa ngi ru ngi sunu cër yaa ngi lillah am jaara bismillahi ma jumal sant lillah sant lillah ñi ci dunya jaaratullah am jaara yaa jar siyaara dira am tey sukku tey abdiya lillahi maam jaaratu la bismillahi ma jummal sant lillahi sant lillahi ya ngir doon yaa rasulillahi jaaratula maam jaara bu soonu semmal jaaratula bismillahi majuman sant lillahi ñi ci doon yaa jaaratula jaara dem leen jaare ji sunu maam jaara xudwatuna ku teef la fi Poroxaan maam jaaratula ma jummal sant lillah sant lillah yee jaara dem leen maam jaara dem

siyaare ji sunu maam jaaratu la Porokhane dem leen siyaare ji Tuuba dem siyaare ji Naawel dem siyaare ji sunu maam jaaratu la dem leen siyaare ji Tuuba siyaare ji Naawel dem siyaare ji sunu maam jaaratu la jaara ngir moo nu doyloo doy rasul doy rabbul wara Seexu Bamba jaaratula bismillahi ma jug man sant lillahi sant lillahi ñi ci doy yaa jaaratullah jaara doy loolu doy yey doy na Cheikh Bamba ñu doy yey abadan te mooy dana yey xayru xalqullahi bila jaara doy loolu doy na Cheikh Bamba ñu doy abadan te mooy dana yey yey doy na Cheikh Bamba xëy na Seex Bamba ñu doy abadan te mooy doon xayru xalqulaay billaay jaaraama maam jaaraat ñaawoo njotu daaw la jëw doo janni daa woora mbaaj maam jaaratula sa dooma gën ci wolof moo gën ci réewi arab faas ak marakis wa baxdaad jaaratula jaaraama maam jaara ñaawoo njortu daawu jëw doo janni daawoo rambaaj maam jaaratulaay siisoo añaanoo te daawoo boddi dooga defar te ginde yaanu ko wan yaa jaaratulaay raayo nga neelu waa nga tuuba sadu bayar na ko tey Muntaxa Basiiru mooy xalifa billah yaar na ko tey Cheikh Mountakha Bassirou mooy xalifa billah waraxaan Cheikh Mountakha Bassirou mooy xalifa billah waraxaan Cheikh Mountakha Bassirou mooy xalifa billah jaaloote na Cheikh Mountakha Bassirou mooy xalifa billah Mountakha Bassirou mooy xalifa billah jurinu Poroxaan Cheikh Mountakha Bassirou mooy xalifa billah baraxaan sa muntaxa basiiru mooy xalifa billah yow li nu baraxaan muntaxa basiiru mooy xalifa billah sax muntaxa basiiru mooy xalifa billah yal na fi yàgg te wér barke borom Tuuba amiin barke Seexul Xadiim jërëjëf